woote une comité un comité boo xam ne bu yaatu la ñëw ànd ak ñoom liggéey bi ñu def ko noo xam ne tamit muy lu inclusif ndax mboolem ñi nga xamante ne ay jullit lañ te nekk fii ci Porto Novo euh, dañ caa bokk gis nañ communauté xaadre bi gis nañ communauté tijaan bi gis nañ ñi nga xam ne sax amaana nekkuñ ci benn tarix tey jullit rek te nekk fi ñëw ànd ak ñoom liggéey bi comité d'organisation bi tamit def yitte ju kawe ci communication yi nga xam dañ ko fiy def ñu def ko naane les international def ko ci lu demee ne français def ko ci lu demee ne tamit arabe muy loo xam ne kon lu am solo la tey jii dañoo bëgg tàmbale visite exposition bi ci kalaamay wolof li ci jublu mooy suñ mbokk taalibe yi nga xamante ne dañoo bàyyi ko Lomé ca Togo nga xam ne diggante bi foofu sore wut waaye muy ñoo xam ñu ñoo am pas-pas lañ ñoo am yitte lañ ñëw ànd ak ñoom liggéey bi waaye tamit ñoo ànd ak lenn ci comité d'organisation bi nga xamante ne moo yor wàllu liggéey bi ndax boobu ba tey ñu ngi ci wàññi ñu ngi ci yitte ji kon ñu ànd ak ñoom présentation liggéey boobu kon danaa jox sëñ Mouhamadou Lamine Diouf ñoo ànd ak ñoom présentation liggéey boobu euh, gannaaw bi tamit danañ sàkku ki nga xamante ne mooy son excellence consul honoraire bi nga xam ne euh, yàlla dogal na casquette bi nga xamante ne moom la yore ci liggéey bi yëpp mooy kasketu Baye Fall taxawu liggéeyal seen Tuubaa bi ba waxtu wu nekk du laal suuf di jëm kaw rek moom tamit danañ ko jox suñ defee tur bi ba pare mu sànni ci ay kàddu soññeem a kaddu ñaaxam kon ma jox sëñ Mouhamadou Lamine Diouf bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñuy nuyu bokki taalibe yi nga xam ne yëpp ñoo fi ne ak mbooleem ñi nga xamante ni ci waa lome lañu nekk ak waa euh, Bénin euh, ñëw fekkee liggéey bu am solo bi lii nag di exposition boo xam ne ni ngeen ko gisee euh, ñi ngi ko def ci maanaam li ñuy wax universalité de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba ni nga xamante ni liggéeyu Serigne tubaa noonu la doonee liggéey boo xam ne. yamul Sénégal rek wolof yi rek moomuñu ko fu àddina ne te lislaam di fa dox ñu war ko faa mën a yóbbu ni nga xamante ni la ko sëriñ bi euh, waxee nga gis ne kon euh, ñi sant nag bu baax bokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ wi ak ñi waa ahlu café nga xamante ni ñoo koy taxaw bi seen liggéey wàññi ko ñu ñëw ba ñu mën a ànd ak ñoom liggéey bi kon dañ koy dooree rek euh, fi nga xamante ni fa la tàmbalee mu aju ci li nga xamante ni mooy sëriñ tubaa tey fu àddina mën a yem mënees naa wane ab liggéeyam ni mu doonee liggéey boo xam ne ñëpp ci lañu bokk ndax moom euh, la sëñ Abdou waxoon nee na benn woote bu mësee sa gis mu woote ko bu weesu wa daahiyan ilallaahi bis isnihi amul kon yonent yi fi jiitu woon te daan woote ci turu suñu boroom dañu ko daan def ci ndigalam Sëriñ Tuubaa itam bi mu ñëwee liggéeyam wàccul ndigal loolu ndax liñ ko gis mu wax ko mooy laakin unaadi kullal hibaadi ila himaadi bila jalaay yaa la bari yaa la ahla bahri hon jooli bari bahri saxaay wane ne ñi mu woo mooy mbooleem àddina yi sëpp kenn ku ci ne bi mu leen wooyee nee na leen nañu ñëw ma joxoñ leen ki nga xamante ni mooy sama wéeruwaay di suma sukkandikukaay mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woo waa géej gi ak waa jéeri yi woo leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa muy bahri saxaay kon gis nañu moom bi mu wootee ba mbooloo mi ñëw joxoñu leen boppam yonente bi sallallahu alayhi la leen joxoñ ab liggéeyam tey suy ñëwee ci barab boo xamante ni dañ fay sottante xalaat kenn ku ci ne li nga am nga di ko indi wares naa wane yoonu murit buñ ne dafay liggéey bu yaatu weesu jamono yëpp weesu réew yëpp amul fuñ koy kar ne fii la war a yam wala ñii ñoo ci warul bokk ak ñee kon loolu dina laaj ñu waxtaan tey ci mbooleem umma islamique bi nga xamante ni fuñ fi mën a nekk euh, lenn moo leen boole muy lislaam kon ñu gis ne booloo googu nga xamante ni yoonu murit ñëw na bokk ko ci lislaam day bokk goo xam ne amul fu mu yem day romb Sénégal romb Afrique wéy fu àddina yem rek dafa yegg bi ci des mooy amul jamono ju muy doon ak ju dul doon kon gis na ni sëñ Tuubaa ñi àndoon ak moom mag ñi mag ñi la ñuy wax waaye tey jii am na ñeneen ñuy judd te fu àddina yemit ñu gis ñu ñëw di bokk ci yoon wi mu doon loo xam ne itam dañ koy def ci li nga xam ne jullit yëpp moom la ñu bokk muy bokk goo xamante euh, ak euh, wuute yoo xamante ni ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee woon nee na wuute xeet wi yërmande rek la waaye firiwul xàjjali ko ñiy jàpp fii ñi jàpp fee loolu itam li ci des mooy bu ñu ñëwoon di ko wax dañuy sukkandikoo ci ñett yi nga xam ne l'islam moom lay sukkandikoo lenn li mooy alxuraanu karim li ci des mooy sunna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ci des mooy ndaje boroom xam-xam yépp loolu boo ko ci xooloon tey ci yoonu murid gis ko lenn rek mooy li nga xam ne fés na ci mooy tey yoonu murid dafa bokk ci wàllu ahlu sunna wal jamaa bokk itam ci ngir mi nga xamante ni tey Serigne bi amee kenn ci taalibe yi ku ko doon laaj nu mu war a def ci fànn sàngam ak fànn sàngam daf ko joxoñ ne ko day toppal ngiru imam Malik ndax leer na te yitam sell na loolu kon moo waral waaye moom fi mu taxaw biñ ko laaj yooni moo leen dafa ne man sosuma ab tarixa dama fekk yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa àndoon ak sahaaba yi ci jaar ci mu xaw a fargay ma gajj ko ba mu set wecc defaraat ko ba mu leer naññ wax ni ku bëgg a dem nu ñëw yoon waa ngi yoon woo mooy yoonu jaayante kon moom mosul woote lu weesu lislaam gi nga xamante ni moom la yeesalaat kon tey danañ gis ñu bari ñoo xamante ni dañuy am nu ñuy jàppee yoon wi ñu jàpp ne tariixa la ñi jàpp ne yoon la woo xam ne kem yoonu euh, ñuy yëngu ci tasawuf ñu xamee leen noonu ndax li Sëriñ woote woo àddina yépp mënul naa yem ci kuréel bu ndaw boo xam ne dañ naan ñii ñoo ci bokk ñii duñu ci bokk moom lislaam la woote kon mbiram ñépp ñoo ci mën a bokk kon loolu nag su ñu ñëwee te wax yi bari ci am ñu ko nit ñi gisee am nañu koy xalaatee moom sëñ bi bàyyiwul yëfi noonu yoonu murit itam su fekkee dañ ko naan nii nga mel nee nga mel yaay lii yaay moom am na lu mu waxal boppam ne moom la te loolu dara gënu cee wér kàddu yi nga xamante ni sëñ tubaa moom la waxal boppam ne soo sosuma ab tariixa lislaam laa yeesal tubaab yi nga xam ne nag ñoo fi nekkoon te lu mel ni yoonu murit baaxul ci ñoom ndax euh, arrangé wu leen ci la ñuy woote rawatina bu ñu bëggee noot askan wi jaare leen ci seen diine ji nga xamante ni ku ne xam na ni diine catholique moo ne ci ginnaaw noot leen jëfandikoo leen kon ñoom lu bari lu ñuy wax tey jii ñoo ko dugal ci yoon wi naan lii mooy yoonu murit lee mooy yoonu murit laa mooy yoonu murit waaye ñoom la ñuy wax ñu bari ci yenn jàngkat yi jàng ko te jotuñoo xam li sëñ Tuubaa wax loolu kon baax na fu ñu daje di leeral yoonu murit ñu wane li borom yëf yi waxal boppam moom wane ne du lenn lu weesu lislaam loolu nag am leneen loo xamante ni ñëw na dolli ko ci gis nañ ne xarnu bi ñu génn euh, li ñuy wax ci wàllu lislaam ñoo xamante ne ak teengal tàbbi na ci ñoom muy ay mouvement réformiste ñu ci bari jàngee ci yenn réewi araab yi te euh, jotu ñoo am ñoruk xàmmee luy lislaam ak luy arab politique jaxasu ji ak leneen ak leneen ñooñu itam am na nu ñuy jàppee yoonu murit noo xamante ni euh, jàpp nañ ne dañuy gëb ay nit wala dañ leen di jaamu waaye loolu lépp ay tuuma la yoo xam ne rek sëñ bi moom li mu waxal boppam mooy euh, ci gisaawu sàkkoor seere leen ne man jaamu bi yàlla laa boo xamante ne du ma bokkaale yàlla ak dara xaritu yonente bi sallallahu laa soppeem laa te itam du ko weesu wala si hat bi anni laa udaahinu mushrikan xalilan habiban lillazi karamal janba kon moom weeselewul boppam lenn loolu nag tey taxawaay bi ci lislaam mooy ku ne xam na ni saaba yi bi ñu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li leen boole woon ak moom mooy jaayante jaayante ku dem ci alxuraan fekk ko ci suñu borom di wax ne jullit ñi yàlla suñu borom nangu naa jënd ci ñoom seen bakkan ak seen alal ngir waru leen àjjana wax na ni itam keroog ba ñuy jaayante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko seen bopp ak seen xel ak seen xalaat ak seen lépp ci la ñu am lu leen jafe woon muy ngërëmal yàlla suñu borom te loolu ku dem ci alxuraan di nga ko ci fekk muy inna laa ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna ak laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarat bi loolu jàlle itam mu wax ne nag ndax loolu jàpp leen ne ci ñooñu rek la yam déedéet ñi nga xam ne ci ginnaaw gi dañoo ñëw jaar ci yoon wi ñuy jaaroon ànd ak ñoom topp ci seeni tànk añ bi benn añ la bu leen yàlla di boole muy ngërëmal yàlla suñu borom radiyallahu anhu radu anhu kon loolu ñun moo ci dugal mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa ñun ñi itam moo ci dugal ëllëg ñii ñëw ci yoon wi loolu moo leen ci indi ñu xam ne dañ koy sof rek ci wa saabixuuna lawalun min al muhajirin wal ansaar kon yoonu murit loolu la nga gis ne kon tey bari na lu ñu koy xalaatal ak lu ñuy jàpp ne moom la tubaab bi naan islam noir la nit ñi ñuul rek ñoo ciy ñoo ci ñoo ciy gëm tey ji yaakaar naa ku ñëw fii tey ci ci ci Bénin wala nga dem Togo dem ci réew arab yi dem feneen di nga gis ñoo xam ne <coughs> dégguñu sax wolof mosu ñoo ñëw Sénégal te Seexul Xadim la ñu yaakaar doon ay murit kon ñoom la ñu jàppoon ne mbirum wolof la rek loolu tey jii euh, euh, dañ na sëñ bi nag indi ci lu leer nañ ndax ci atum 1926 benn gouverneur général bu ñuy wax Jules Card daf ko laajoon lu tolloog fukki laaj ak juróom-ñaar ci laajo yi bi ci jiitu mooy daf ko ne lan mooy yoonu murit mu ne ko yoon la woo xamante ni mi ngi juddu ci taw tawhid ci gëm yàlla gu wéeru ci tawhid ak lislaam goo xamante ni ci fiq la sukkandiku ak tasawuf goo xamante ni ihsaan koo xamante ne ci tasawulu sukkandiku te ñett yooyu sëñ bi nee na mooy xaaju diine iman islam ak ihsaan kon sëñ tubaa mbooleem loo xamante ni l'islam amoon na ko ci ay mbaax yeesal na ko diiru fanweer ak ñett yoo xamante ni diggam ak tubaab yi la te mosuñoo gis mu faat benn bakkan wala mu jël kenn indi ko ci jiyaat ñi nga xamante ni itam ñoo ko doon tere mu yaatal li mu doon yaatal xeex na ak ñoom waaye nee na ci xereñ ak tudd yàlla ak muñ ak mbooleem yu baax yi nga xamante ne yonent yi fi jiitu woon ci la ñu rawee woon seeni noon ci lañ leen nootee woon ci la ko def kon loolu tey mooy li nga xamante ni tey mënees na ko jàng ci yoonu murit ñu gis ne nag tey su ñu demee bay waxtaan ci yoonu murit ni mu doonee loo xam ne tey ak seexul xadim li mu indi yeesal ko àddina sépp ñoo ci war a mën a jariñu dafay am solo ndax gis nañ ne am na ñoo xam ne ñu ngi dugal ay xalaat yu bokkul ak ñoo xamante ni ñu ngi jéem a leeral loo xam ne leerul ak ñoo xam ne ci wàllu propagande ak ak dox ci xelu nit ñi ak yàq seen pas-pas ak jéem la réeral ci lañ koy def ñu ci bari itam xamatuñu lan mooy jaayante di yoon woo xamante ni nit day ànd ak kilifa topp ci ginnaawam mu di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi na saaba yi defoon seen diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu tey dem nañu ba jàpp ne dañu ko war a raafal yoonu murit da ko yeesal dekkalaat ko ndax loolu moo doxoon diggante Sëñ Tuubaa ak mag ñi suñu xooloon tey lislaam li ci ëpp ñi ngi bokk ci ay kuréel yu ñuy wax ay ay ay ay mazhab di ay ngir muy imam malik imam shafi abu hanifa ak imam ahmadu anbal ñooñu soo xooloon jullit yëpp bu ñu doon téeméer juróom-ñett yi ñoom la ñeneen ñi nga xamante ni bokkuñu ci euh, kuréel yooyu di mazhab yi fukk lañu ak juróom-ñaar te fukk ak juróom-ñaar yooyu mbooleem leneen loo dégg muy yëngu ci lislaam te bokkul ci mazhab yooyu ci la bokk nga xam ne tey ñooñu la bu ñu ko seddoo woon téeméer boo jël doo gis ko ci am lu mat benn taalibi kon ñooñu tey dañoo niiw lool kon mënuñu jàpp ne ñoom euh, ñooy atte lislaam ji wala seen xalaat mooy dox wala ni ñu gisee la ñëpp war gisee terewul nag ñu xam ne suñuy bokki jullit lañu yoo xamante ni Sëriñ Tuubaa daf ñoo digaloon ne wala tahudu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illallah bu leen noonoo kenn koo xam ne gis ngeen ko muy génnee baatub laa ilaha illallah ci gémmiñam kon looloo tax ñu war a laabirante ak ñoom waxtaan ak ñoom leeral leen ngir bu fekkee yéene ju sell la ñuy jàpp ne mooy seen itte buñ leen waxee lu yoonu murit dinañ ko mën a xam beneen bi ci des mooy yi nga xamante ni tey ñoog jullit ñëpp ñoo ko bokk mooy ñoo bokk génn gëm muy aqida amul benn jullit buy jaamu ñaari yàlla kon loolu ñoo ko ñoo ci nuroo alxuraan itam amul ñaari téere benn la kenn ku ne ci ñun suy ja suy suy jur suy julli benn xibla lay jublu muy màkkatal mu karam ba noppi itam ñoo bokk benn yonent te yooyu mooy yi gën a am solo yi nga xamante ni ñu ko xës bokk leneen la ci des lépp détail la du lu am solo loolu mooy li gën a farte loolu bokk nañu ko ak ñëpp li yombal nag seen liggéey boobu yaatal ko ba mu yegg foo xamante ni tey jii dayo bi day mel nii ëpp na mooy ah yàlla dogal na ñu ci bari suñu borom mënee na leen gan ci wàllu koppar ñu yor ci lu takku wàllu communication itam waa yenn seen yi nga xam seenu ak yenn euh, télévision yi ñu mën koo am nga xamante ni seen xalaat mën naa yaatu donte ñu néew lañu waaye li ñuy jot si nit ñi day bari mën a ay téere maye ko ba tax nit ñi jàpp ne xëy na lii ñuy wax amaana mooy li dëppoog dëgg gi leneen li ci des tam mooy baax na itam ñu gis ñu bari ñoo xamante ni tey jii euh, dañuy jàpp ne yoonu murit kat mbirum koom mi rek la ñuy gis gis na tey bu sëñ bi ne nañu joxe université fanweeri milliards ak juróom-ñaar ah nit ñi njëkkante ko buñ ne ña ngay tabax kër sëñ Tuubaa ñu njëkkante ko bu dee ñu ñu ngi liggéeyal sëñ bi ñu mën cee joxe lu takku loolu nag tax na ñu bari sax jàpp ne euh, ak wàllu immigration yi am ak yu ni mel ñu jàpp ne yoonu mu murit ndax du ñoo xamante ni dajale xaalis rek wala dajale am koom rek moo leen tax a jóg waaye dara ci yooyu taxul te sëñ bi wax na ni lim la digal mooy na ngay liggéey ba mel ni dooroo fi jóge tey jaamu yàlla ba mel ni suba nga fi jóge moo xam ne ñaar laa leen digal bu leen ko utal ñetteel muy liggéey ak jaamu yàlla su ngeen ko defee di ngeen noppal kon loolu la yoonu murit taxaw jëfe ko te loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digaloon moo tax tey ji soo xoolee ci archive coloniale yi tubaab yi ci 1926 nee nañ yoonu murit daal su fekkee xoolee nañu ba bàyyi ko mu law am na loo xamante ni ah, dañuy jàpp ne xéewal la mooy gis nañ ci wàllu koom ak wàllu doole tax na ba wàllu mbay ci diggante diwaanu Bawol bii ñu ne budlu woon ak ñoom kenn du ko waxati bu fekkee Sénégal liggéey na bu toll tey ci wàllu mbay neen na yoonu murit moo tax kon loolu 1926 la ko tubaab bi doon wax nga xam ne boobu fekk na sëñ bu mag bi mi ngi fi kon ñu gis ne alal jooju it li muy bari bari bari dajale ko taxul denc ko ci banque yi taxul yàq ko taxul lenn rek moo tax mooy defaat ko ci yoonu yàlla suñu borom te yàlla suñu borom moo wax ci alxuraan ne lépp lu ngeen jël def ko ci yoonu yàlla yàlla dana leen ko fay wax na ne ñi nga xamante ni dañuy jël seen alal di ko def ci yoonu yàlla yàllaa xam seen yool fu muy toll nga xamante ni nee na lu ngeen joxe itam ci lu baax yàlla dina leen ko delloo kon yooyu yëpp soo demee ci alxuraan muy li ñuy wax infaax di nga ko ci fekk kon alal ji murid yi liggéey loolu lañ koy doyee te yaakaar naa ku dem tey Touba dem ci yeneen barab yi nga xam ne jëmmal nañ fa yu takku ci wàllu lislaam jumaa yi daara yi barabu liggéeykaay yi jàngalekaay yi loolu yëpp dina wane ni kon alal ji ci foofu rek la jëm ñu gis ne nag wàllu universalité bu ñu koy wax wane ni mbirum sëñ Touba doone lu mat àddina sépp nañ ne euh, moom dafa wax ne yàlla suñu borom aji jiitu la te amul fu mu yem fu mu tàmbalee di aji des joo xamante ni itam amul fu mu yem kon ginnaaw lépp day dem fàddu jëmmi suñu borom ji rek moo fi des kon loolu baax na nit ñi xam ne liggéeyub sëriñ tubaa ak li nga xamante ni moom la bàyyee jamono du lenn lu dul yorente yi nga xamante ni ñoo ko fi jiitu woon suñu digg ak ñoom doon ay junniyaat ak lu topp lañ fi bàyyi woon bu bisub tey nit ñi ngi koy gis di ko di ko jàpp di ci wax loolu itam moom la sëñ Tuubaa indi ñu gis ne kon weesuwul yonente bi sallallahu alayhi mi ñuy liggéeyal suñu borom daf ko waxoon ne ko wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas bashiran wa naziran kon da yoon laa yónni ci mboolem jullit ci mboolem àddina sépp amul ñii lañ la yónni wala ñee moom sëñ Tuubaa mi nga xamante ne nag daf koy liggéeyal bi mu ñëwee lu tollook fukki xarnu ak ak ak ñeent ginnaaw bi bi mu ñëwee dafa ne mankat damay liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey boo xamante ni mboolem ñi nga xamante ni ay doomu aadama lañu fu ñu mën a ne ci àddina ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf si moo xam ñu nekk ci géej gi wala ñu nekk ci jéeri ji wala fu ñu mën a ne woo naa leen ci liggéey boobu mooy liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw moom ki muy liggéeyal ci ñëpp la ko yàlla yónni woon moom mu ñëw di ko liggéeyal moo tax kon moom ñëpp lay woo moo tax yaa ahlu bari yaa ahlu bari xoojoo lu bari bari saxaay kon bàyyiwul kenn nga xam ne kon ku génn te yaa génne sa bopp waaye moom ñëpp la woo kon day mel ni àddina soo ko jëloon tàllal ko mu nekk ci benn carte fa mu tàmbalee ci cat la ci kaw ba ci cat la ci suuf fa mu tàmbalee ci ndeyjoor ba ci càmmoñ ku nekk ci rëdd boobu rek li waay woona loolu loolu nag bi mu koy def mu defee ko ci liggéey boo xam ne te ni ab dox la nga xam ne waxu ko rek suñu borom bàyyi ko noonu waxul ne damay liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek mu bàyyi ko noonu waaye daf koo jaarale ci barab yoo xamante ni jaar gi mu ci jaar moom la jaar ba lépp àgg mu def ko ak dund tey jii bu ñuy nettali ak dundam di ko fàttali ñu xam ne fii fépp jaar na fi waaye foofee mu jaar fépp lim ci jublu moo doonoon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa doon ab jaamu yàlla ndax moo wax na ni lenn rek mooy itteem doon jaamu yàlla buy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam abdu abdullahi waxadim li rasuli sallallahu alayhi wa sallam nee na amul beneen adresse boo ko nit mën a jox bu weesu loolu nee na itam tagg yi muy tagg yonente bi bëgg ko moo tax liggéeyal gi mu koy liggéeyal bëgg ko moo tax lépp loo xamante ni gis nañ ni mu di ko def bëgg yonente bi sallallahu alayhi moo tax moo tax bi mu jógee itam di yeesal yoonam wi delloo ko ci boppam wala mu delloo ko ci ab dëkkam wala mu delloo ko ci aw askanam wala mu delloo ko ci lenn loo xamante ni tey soo tuddoon tey ji muridullaahi dinañu xam ne ku jëm ci yàlla la te loolu nag amul wolof amul amul amul tubaab amul naar képp koo xam ne ab jullit nga sa itte mooy jëm ci yàlla moo da sëñ bi yoon yi mu tuddee ko muridulaahi woote ñëpp mën cee bokk beneen bi nga xamante ne moo ci des tam mooy bi mu ñëwee itam fekk na euh, ñu bari ci ñoo xamante ni nekkoon nañ fi l'islam di seen itte ñuy xeex ngir yóbbu l'islam ku mel ni El Hadj Omar Fouti Tall ku mel ni Mamadou Lamine Dramé ba ci almaam yi nga xamante ne nekk nañ ci Fuuta ak feneen ku ci ne loolu moo doon sa itte yóbbu lislaam waaye ñi ñu doon jàmmaarloo muy tubaab yi seen i ngànnaay ak seen kattan gileen suñu borom jox tax na kenn mësul mën a àgg ak ñoom fenn fi sëñ bi nag bi mu ñëwee xam ne yàlla suñu borom kat nee na ndax dangeen naan gëm ngeen rek ñu bàyyi leen yàlla dina leen nattu ba xam ñi nga xam ne li ñu wax dëgg la ci ñoom ak ñi nga xam ne li ñu wax du dëgg moo tax moom bi mu jógee fas yéene def loolu suñu borom daf koo jaarale ci yoon woo xamante ni bi mu ci jaaree ba àgg gis nañ natt yëpp rafetal na ko tegoo na ko def na ko ni mu ko war a defee mu tàmbalee ci mbàkke baar yi ku ne xam ne tubaab yi ñu ngi ko fi jëlee fukki fan ak juróom-ñett ci safar waaye balaa boobu am na lu tolloog ñeenti weer yoo xam ne toog na ko mbàkke baar yi nee na foofu li nga xamante ni moom lay dëppool ak li yonent bi sallallahu alayhi dundoon mooy la ko suñu borom waxoon wa iz yamkuru bika lazina kafaru li yusbitu ko aw yaqtulu ko aw yuxriju ko likul bi nga xamante ni waa màkk ñi ngi daje di xool ndax dañuy faat sa bakkan am dañ lay am dañ lay jàpp tëj la loolu la tubaab bi doon jéem suñu boroom dogal ci génn gi mu dajeek ñoom jeewal fukki fan ci weeru août 1895 nee na foofu itam suñu boroom daf ko fàttali keroog ba saxaaba yi jàkkaarloog waa waa waa Màkka yaa ayyuha lazina amanu iza laqitum lazina kafaru zahfan fala tuwalluhum adbar bu ngeen janoog yéeféer yi wéy leen bu leen dellu ginnaaw moo tax sëñ bi delluwul ginnaaw te kenn la Leclerc mi ñëwoon di ko song si ab armée la indi boo xam ne dañuy jàpp ne am réew la ñuy xeexal mu dajeek benn nit bi mu fa jógee itam jaar na fu mel ni kokki jaar luga nee na foofu itam ba mu fa agsee magi taalibe yi dañoo takku laxasaayu ne ko suñu ngor mayetuñu ñu seetaan la tubaab yi di la yóbbu dañoo bëgg nga jox ñu ndigal ñu xeex ak ñoom ba jeex takk ñu lay soo a mën a yóbbu sëñ bi ne leen déedéet jaru man li may liggéey xeetoowul ak loolu dinaa dem indi jàmm ba mu mokk sama digg ñoom wolub dëggëj la rek day mokk te kenn du dégg dara nee na loolu noonu la ko defee mu ñëw ndar foofu itam am na fa ay weer yoo xamante ni nee na daj naa fa loo xam ne du ma ko wax mukk ngir ay teggin sama diggante ak bi sallallahu alayhi wa te boo génnagul Sénégal ñu yóbbu ko juróomi fan ci weeru septembre ci conseil privé lañ fa tënk mooy kii daal gis nañ ne génnee ko réew mi ba li muy jàngale ñu fàtte ko rek la ñu gis ne moo mën ci moom dara ginnaaw bu ñu jéemee ba sonn nag ci jéem a faat bakkanam te mënuñu ko mu jóge fa jaar ndakaaru def fa guddeem yooyu nga xamante ni nee na saa bu ci xelam demee fetal jiyaar rek la xalaat ngir metti gu mu metti ak tar gu mu tar bi mu fa jógee nag ñu defee ne day noppalu noonu lañ ko toppee ci yoon wi mu jaar Conakry jóge fa dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem dem Grand jóge fa ci yoon wi jaar fii nga xamante ne tey jii mooy daaw mi nga xamante ne tey moom la ñuy wax bene sëñ bi jaar fi fii ci Porto Novo loolu yëpp ci yoon wi ba ni mu nekkee Gabon Gabon def na fa juróom-ñetti at yu manqué tuuti diggante Mayombe ak Lambaréné moo ci gën a fës te jublu gi moo doonoon faat bakkanam bi ñu demee ba gis ne mën mënaluñu ko dara ñu ne nañu ko dellu si ci réew mi dellu si gi nag du ci seen coobare ndax wax na ni li muy dëppool ci biir liggéey bi mooy wa in tahudu nahud wa in huttum hutna su ngeen defee la ngeen defoon ñu defete lañ defoon bu ngeen dellu see ñu dellu si kon yi ginnaaw bi ñu leen dumaa dumaay métti ci badar ne leen li ngeen defoon ba ñu duma leen duma yi bu ngeen ko defee ñu defaat leen noonu sëñ bi nee bi mu tàggoog tubaab bi loolu la ko yàlla suñu borom dëppool nee na itam mu jóge fa ñëw Sénégal bi mu agsee Daaru naan jàppoon nañ ne réewum Sénégal mënul yëngoon noonu ngir benn nit bi sëñ wàccee Ndakaaru ba fi mu jaar yëpp ba Daaru naan bi mu fa agsee ba Daaru Salaam juróom benn weer yi mu def Daaru Mannaan dañ ne kii ëppoon naa bàyyi ci réew bu ñu ko dellu si bu ñu ko yóbbuwaatul leneen dina xew ci lañ ko soog a gànnaar gànnaar itam bi ñu ko fa yóbbu ay nit yàlla lañ fa fekk ay shérif ñoo xam bi saa sa maam ay boroom xam ay laay waaye ba mu fa ñëwee jëflante nag ñoom loo xam ne soo demee daare kaam li nga fa fekk diiwaan boo xam ne ku dul naar woy ci sëñ Tuubaa ñu gën a màgg ku mel ni Cheikh Sidé Baba Cheikh bu Abu Madian ibnu Silman Mohamed ibnu Alhassani ak Abdallah Alhalawi Mohamed Fall ñoo ñëpp ku ci ne ay xasida yi xasida yi xasida la ñu woy ci sëñ Tuubaa te doy na rek li ko li ko Cheikh Saad bi wax moom mi nga xam ne sëtu yonente bi sallallahu alayhi wasallam la ne ko bu ma fàtte te bul fàtte xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon ñooñu kon nangul nañ ko li ko suñu borom doon defal bi ñu gisee ne gànnaar lañ ci bëggoon amul ñu nañ ko dellu siwaat ci réew mi yóbbu ko ci Thièyène Jolof foofu itam mu def fa juróomi at yoo xam ne bañ ko fa yóbbu barab la boo xam ne dara amu fa jàppoon nañ itam kenn du koo fekk ndax dem gi jafe na waaye juróomi at yam fa def dañoo mujj ne kii kat àll bii ñu ko bàyyi wóorul ndax gis nañu mu fiy def loo xam ne ñi muy yar fii bu ñu yaatoo kenn dootu ko mën a attan bi loolu jàllee nag mu ñëw jóge ci yéen ñëw Jurbel 1912 njaareem googu nag fa la def fukki at ak juróom yoo xamante ne nee na mboolem luy fànni lislaam yuñ doon def yeesal na ko ba nee na ak dundam nee na bi mu ko tënk ci akramanil hilm mahal a asalihaati sahali kamali sëñ Blaat nee na loolu bu ko sëñ Tuubaa waxee ñi xam ñu ne xam nañ loolu mooy al yawma akmaltu lakum diinakum te loolu yoon bi sallallahu alayhi wasallam la ko suñu borom waxee ginnaaw bi ab liggéeyam àggee kon ñu gis ne mbooleem fi nga xamante ni jaar na fa ba ni mu agsee ci ci ci Porto gi nga xamante ni tey moo la ñuy wax daawme lim ci waxoon rek nee na euh, ba ma fa agsee yàlla suñu borom defal na ma lépp loo xamante ni waxaale la ak jënd ma tàggoog moom ginnaaw boo xamante ni woo naa ko ci turam yi nga xamante ni mooy rahim dahaani rahimu daaw daawme loxo bi ma ax naa anita sawme loolu day nekk tey ci ci Porto Novo kon loolu lañu doon tënk rek ci euh, tour bi nga xamante ni def nañ ko ci exposition bi tey sant nag mboolem ñi nga xamante ni teewoon nañ ko jërë ngeen jëf. Ah, jërëjëf jë jërëjëf jëwriñ euh, exposition bi jaar na yoon te kontaan nañu trop trop trop trop trop trop trop trop ci seen taxaw seen taxawaay fii Hizbut Tarqiyyah vraiment lépp jaar na yoon kon nag. Euh,